mbokk yi arbitre bi sifflé na dox ci diggante Kaolack ak Fatick plus de cent kilos dox ci diggante Doudou Sané Ngagne Sène ndaysaan ñoom ñaar ku ci nekk am na deux kii par équipe deux kii par équipe deux Doudou Sané fàqat na ko bañ na jàppante nañ ñoom ñaar ku daan génn ndaysaan ku daan génn ñoom ñaar laa ilaaha illallaah jël na ko bañ na arbitre bi àtte na lan lan la lan la arbitre bi am wax Doudou Sané arbitre bi sifla waat na ngañ seen Doudou Sané Kaolack Fatick ndeysaan ngañ moo la féete càmmoñ centre centre bleu Doudou Sané teel na ko plaqué mu bañ ngañ seen Doudou Sané <laughs> ay waaye ku daan jël ku daan génn ku ñu daan nga perte final ba nga noonu ngañ seen Doudou Sané ñoom ñaar dégg nga ko ah waa ji nee na sànq fu ko fekk daan ko moom Doudou Sané ngañ seen na ko xale màgg na dina màggam déet fu ñuy mujj ñoom ñaar ngañ seen Doudou Sané ngañ seen ngañ seen Doudou Sané Ngagne Sène Doudou Sané daw na jàpp ko jàppante nañ lu nar a xew Doudou Sané Ngagne Sène Kaolack Fatick ndaysaan gañ seen Doudou Sané laa ilaha illallah ndaysaan ñoom ñaar final la ku daan jël ku daanu xaar xale màgg na wala déet Mbaye Babacar jël na ko. Ngagne Sène Doudou Sané na ko Doudou Sané daan na Mbaye Mbaye Babacar Doudou Sané daan na Ngagne waaw waaw eh Fatick nee daan na ko juróom benn yoon Doudou Sané nee daan na ko juróom benn yoon eh Doudou macha allah ndeysaan ko daan naa la juróom benn yoon ndeysaan gañ seen Doudou Sané ngañ seen Doudou demi-finale poids lourd ndeysaan Doudou Sané mbokk yi ñu ngi noonu daje woon nañ démb Doudou saane daan ko tey ñu dajawaat lu nar a def Doudou Sané ngañ seen ngañ seen daw na jël ko doole dafa doxul jàmm Doudou daa xaw a sàcc doole ngañ waaye ngañ du maye dara ngañ seen Doudou saane Doudou Sané xëcc na ngañ plaqué na ko mu bañ Doudou bal na ko Ngagne Sène Doudou Sané Ngagne Sène Doudou Sané Ngagne Sène Doudou Sané ñoom ñaar mënul yomb ndeysaan ñoom ñaar mënul yomb compétition individuelle bi Ngagne seen Doudou Sané Doudou Sané daw na jëli ko ngañ bañ ñu ngi noonu ndeysaan arbitre bi moom bëre rek lay wax moom yoonam newul ci ku sonn ak ku sonnut moom kuy bëre rek la am jotam ku bërewul amul sa jot cey arbitre cey arbitre c'est le maître du terrain cey arbitre ñàkk caaxaan de bu ñu koy wax arbitre a tax bu ko neexee joxe la ko neex recours rek ngay mujjee def dem ci membre jury bi ñu joxe ñu xool affaire bi jox ka leen neex loolay làmb saan dox ci diggante ngañ seen duudu saane duudu siggi na arbitre bi àtte na dañuy jox ngañ fi dañuy avertir ngañ seen avertissement Ngagne Sène avertissement saane Sané waaw waaw bëre leen Ngagne Sène Doudou saane Doudou Sané ngi dox ndànk ci koom ci kaw Ngagne Sène Doudou Sané Ngagne Sène Doudou Sané Ngagne bañ na ngañ day bañ nee na ko dooma daan démb daan ma tey xale bi màgg na fàqat na ko arbitre bi àtte na arbitre bi dañ koy disqualifié door na ko disqualifié nañ nee daan na ko sept fois moom Doudou Sané Doudou Sané Ngagne Sène lamba gi noonu